ci Abdullah ibn Abbas mu ne bi nga xamante ni rey nanu Qaabil euh, ma bi nga xamante ni Qaabil rey na Haabil nee na boobu aadama mu ngi mag nee na nature bi daf ko yëg ba am na ci garab yoo xamante ni ca la ñu amee dégg ndax naqarlu dégg nga rey ba rey nee na itam ci la ñam yu bari wexe nee na ci la furi yu bari foroxe waaw lu demee ni ki limon yéeg mandarin yéeg yu ci bari ñam leen yu safoon suukar waaye mettitlu musiba boobu di musiba bi njëkk ci kaw suuf looloo tax ñu yenn garab yi am dëkk yenn ñam yi daal di forox looloo waral itam yenn ndox yi saf xorom neexatul looloo taxoon itam suuf si dem ba nga xamante ni am na tilim tilim bu ñuy tuddee poussière loolu lépp du dara lu dul rek mettitlu gi nga xamante ni di nga mettitlu neen ko kirim bu rëy boobu foofu nag la suñu maam Adam yége ne am na lu xew gannaaw bi mu ñëwee nag ba Inde ci la yëg ne ndeke rey nañu doomam boobu di Habil mu metti lu ko lool wax nañu ne sax Abdullah ibnu Abbas e, daf ko weddi ndax am nañu ne keroog suñu maam Adam def na marsiya jooy doomam jooju di Habil waaye e, Abdullah ibnu Abbas daf ni E, amul benn ci yonent yàlla yi ku masa a way ndax yonent bi sallallahu alayhi am na ñu waxoon ne waykat la shaair la ndax waxam bu jekk ndax jawaamiul kalim yi ñu ko joxoon am na ñu yaakaaroon ne waykat la waaye yàlla moo wax ne wa maa allamnaahu shi'ra wa maa yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mosul nekk waykat yonent yi ko jiitu woon itam mosuñoo nekk waykat wante marsiya bi nga xamante ni suñu maam Adam def na ko ci Habil wax ne ne marsiya la boo xamante ni mu ngi ko bind ci langu suryaaniya ndax Adam nekkul woon arab bi mu ko bindee ci langu suryaaniya dénk ko doomam jooju ñuy wax Chiir moom itam danañ ci ñëw Chiir euh, ginnaaw bi Habil dee moom moo ñëw waaye moom bi muy judd moom juddoowul nekk cheikh dafa judd moom dong lu tax ndax bu juddoo ñëw ci lay mën a takk lëbu daam yi nga xamante ni moom moo doon cheikhu habil te jigéen la joo xamante ni narul am jëkkër te jigéen ju amul jëkkër ci société mën na indi musiba bu rëy moom la Sidi Xaaji Malik si nettali ca xilaasu dahab di wax ne wa gayru chitin fa ma tatiihu munfaridan xawaau takrima nuurin gayri musdahami moom chiis nee na awa la mu doon am ci doom yépp ay cheikh lanu waaye siis dong mooy ñëw te nekkul cheikh nekk moom ñëw moom dong kon ñëw na ngir ñaari xikma xikma bu njëkk bi moo di ñëw na pour fas yeneen nekk jëkkëru labudaar xikma ñaareel bi moo di leeru yonent bi sallallahu alayhi bi nekk ci moom te leer googu du raj-raj loo ak kenn du buuxante kenn looloo tax mu ñëw moom dong kon lu ne rekk yàlla laxas na ci xikmaam te nit ñi yëguñu ko ñu ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Adam yàlla may ko doomam jooj ñuy wax chiis wax nañ ne sax chiis wax nañ ne chiis e moo di bu fekkee e, neneen chiis e, làkk bi mu ngi jóge ci suryaaniya du làkku arab ñu ne signification chiis mooy lan ñu ne moo di hibatun min allah maanaam kii kat may la gu jóge ci yàlla ndax leeru yonent gi nekk ci moom loola tax ñu ne aadam yàllaa ko may siis mu nekk chance am yàllaa ko ko may pour mu fas yéene nekk xalifaam ginnaaw bu fi jógee ñu ne siis moomu nag keroog bi suñu maam aadam di génn àdduna dafa jël nag marsiya bi jox ko ko ne ko nag marsiya la boo xamante ni dama la ko dénk pour nga téel ma ko na ko sàmm nag bu mu réer nee na ñu koy sàmmante di ko donnante di ko donnante di ko donnante ba ci jamonoy suñu maam Ismail donn woon na ko ci suñu maam Ibrahim wante Ismail moom bi mu ñëwee dëkk ak arab yi ñu koy donnante ba yàlla dogal itam am ku ko donn ci arab yi ki ko donn ci arab yi nag moom lañuy wax yaarub ibnu qaxtaan moom doom la ci yonent yàlla huut alayhi salaam moom ci da daan làkk langu suryaaniya di làkk itam làkku arab moom nag moom moo traduire eh, marsiya boobu moo ko traduire ci arab daal di koy way wax ne ni moo njëkk a war eh, moo njëkk a war fas moom yaarub ibnu qaxtaan mu ngi bokk ci arab yi gën a tedd tabarakallahu bu ñu toppee kiyam ci la yonente bi sallallahu alayhi wa jóge waaye nag moo di maamu arab yi ñu marsiyé bi nga xamanteni suñ mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiyé bi ñu leen bëgg wax dafa wax ne taghayyaratil biladu wa man alayha fa wajhu alardi mughbarun qabihu تغير كل ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح وقابيل أذاق الموت هابيلا فوا حزنا لقد فقد المليح وما لي لا أجود بالسكب دمع, دمع وما لي لا أجود بالسكب دمع وهابيل تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمو دفي آه، مرسي بي سنو مام حوا مميتم نيكون جيجين جو باخ جيجين جو خامنتيني روي نا جيكرم با كو تيم جانغ مميتم فيلو نكو نيكو دع الشكوى فقد هلك جميعا بموت ليس بالثمن الربيحي وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح ففيتم لإبليس ممتم دادي فيلو سنمام آدم أك سنمام حوا ممتم دادي ويوخني تنح عن البلاد وساكنيها ففي الجنات ضاق بك الفسيح وكنت بها وزوجك في رخاء وقلبك في أذى الدنيا مريح فما زالت مكايد مكايدتي مكايدتي ومكري إلى أن فاتك الثمن الربيح فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لإبليس وخ إي مرسي بنك لميتك موندي سيدي muy أدم عليه السلام جوينا دومم جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها mu ne réew mi suuf si soppeeku na li nekk ci kaw suuf lépp itam soppeeku na ànd ak suuf lu tax mu ne ndax jooy sama doom ju baax ci di Haabil ci rey gi nga xamante ni frère am rey na ko ko mu ne fa wajhul ardi muxbarun qabix nee na suuf si yëpp cher na foo xool mu ngi lëndëm poussière bi jóge na ci gox yu nekk ndax faatu gi nga xamante ni sama doom ju baax ji faatu na ko kon nga yëg ni ndekete suuf ndeket nature bi ndeke asamaan si yàgg naa jooy nit ku baax ku génn àdduna ndeke kon woy bi marché bi jox nañu ne e, habil bi mu génnee àdduna jaww ji yëpp dafa amoon poussière lu tax ndax metit lu ku bax ki dem motax tax mu ne taxayara kullu dhi ta'min wa lawn na mu ne lépp lu amoon tiafka nee sa tiaf sa cafka soppeku na lépp lu amoon couleur sa couleur soppeku na ngir naqar lu génn aduna habin ki nee wa waqalla bashashatu alwajhi as-sabih na suba tel nee waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waaye nee suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de ko kana ma ngi ñëk kana ma ngi ñaaw lu tax ndax metit lu déwu sama dom ju bax ji di habil mune ah wa qabil adaq al maut habila mune qabil mom bon mom dem mosal na wextanu dé sama dom ju bax jëlé di habil mune fa wa huzna woo sama ñakare wóor sama lakku xol woo sama tis, laqad fuqida al malihu dëgg dëgg ñàkk nanu ku saf xorom ku baax ka ku baax ka nga xamante ni xolam bu rafet baa ngay feeñ ca kanam ga kooku ñàkk nanu ko àdduna ñàkk na koo xamante ni dootu ko amati ba mukk mu ne wama lii laa ajuudu bi sag bi damain mu ne man adam lu tax duma tabe ci tuur rongoñ waaw lu tax duma tabe ndax doom ju baaxi nii yaakaaratuma ko kon fokk ma sama rongoñ tuuru ndax wa habilu tadamanahu darixu habil de tey ji bàmmeel muy dëkkuwaayam bàmmeel tàpp na leggam ya man de ñàkk naa doom joo xam ni sama wéttal la woon cig mbaax sama wéttal la woon ca jàkka ja sama wéttal la woon ca waqaf ya sama wéttal la woon ci dox mbokk sama wéttal la woon ci lépp kon ñàkk naa sama doom jooju mu ne e, wajaa shu'latun walaha raniinu liha biliha nee na jum yi ñu ngi bàyyi ko kaw asamaan di yuuxu di jooy maa ngi dégg ay baat yuy jooy ci kaw asamaan si di yëkkat lu tax ñu ngi jooy sama doom ju baax jooju di Haabil mu ne te Qaabil dof ba ku bon ka boroom xol bu ñuul ba moom de mu ngay yuuxu lu tax muy yuuxu li qatli bni nabi bi xëyri jurmin ndax rey na doomu yonent boo xamante ni rey na ko ci lu dul tooñ tooñu ko wax ko lu ñaaw defu ko ko kon nag moom matt na baaraamam wiccax yuuxu ndax rey na doomu yonent boo xamante ni tooñu ko defu ko dara lu ñaaw mu ne man aadam de fa qalbi inda qatlatihi jariixu sama xol góom bu ngi ci boo xamante ni la ko ca def du dara lu dul rey gi nga xamante ni rey nanu ko sama doom ju baax jii di Haabil mu ne wa jaawarana allainu wa laysa yafna aduwun la yamutu fa nastariixu mu ne la ko def nag du dara lu dul suñu dëkkaale bu bon bi suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yàlla musal ci dëkkaale bu bon suñu dëkkaale bu bon bi ñuy wax iblis moo topp sama doom ji di ko digte lu bon di ko digte lu bon bu mu xëy rey mbokkam rey rakkam joo xamante ni ñoo bokk benn biir bokk benn baay bokk benn boroom mu ne ay waa ji noon bii de su dee woon ba ñu lu de sant yàlla wante daf dafa fas yéene ànd ak samay sët dund ba faw mbokk yi la suñu maam xawaa tontu ak la iblis tontu incha allahu ci àjjuma yi di ñëw ci leen ko fas yéene mottali ñu ngi leen di gërëm di من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دبلو كادي سن خريط سن سوبي شا احمد تجاني ندو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم تي كلمه الحق انك سن خريط عبد الله توب الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنت يالا جلتي بي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أك صحابام دلو سنين فسيني كنت نكيين إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين تي وقتان بي بيسو histoire bi nga xam ne xew na ci kër suñu maam Adam alayhi gannaaw ba mu amee ak jaaxle ci njabootam dénk na njaboot gi asamaan asamaan lank ne attanu ko mu dénk njaboot gi suuf suuf lank ne attanu ko mu dénk ko montagne yi ñu lank ne attanuñu ko mu wëlbatiku dénk ko nit te nit kookuma ko dénk moo di xaabil ne ko comme nag yow yaay mag te yaa fi kilifa dama bëgg nga toog ci njaboot gi surveiller leen mu ne d'accord te ndeke booba nar na ak caay-caay te booba suñu maam Adam alayhi mu nga jëmoon mag ba mu demee la xew-xew bu rëy am këram te moo di qaabil rey na habil te rey ba dara diktewu ko ko ndax musuta xam lan moo di rey seytaane moo soppaliku jëm won ko ni ñuy rey mu yëkkati xeer dóor ko rakkam ja mu faatu keroog suñu maam Adam alayhi ba mu dellusee am na lu ko metti lool ba tax itam jooy na doomam jooju di habil na yonent bi sallallahu alayhi wa jooye woon doomam ju tedd ja ibrahim keroog de ba ibrahim génne àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy na waaye jooy ja nag jooy ga àndul ak yëkkat jooy ga àndul ak yuuxu rongañam moo doon sotteeku ci bëtam di dal ci dënnam pour wane ni kii fi jóge sopp na ko moo tax bu fi bu nit génnee àdduna lañu bëgg nga jooye ko ko moo di sa rongoñ tuuru waaye nag yuuxoog daanoog yépp ñàkk teggin la rekk bokkul ci lislaam moo tax ci waxtaan wi weesu wax nañ leen li suñu maam aadam bind mu di marsiya bu am solo ki ñuy wax Yaarub ibnu Qaxtaan di kilifa gu mag ci arab yi moo ko traduire def ko way ndax mu ngi ko bindoon ci langu suryaaniya wax nen ne suñu maam Adama moomu suñu maam Xawa feelu woon na ko wax ko ne ko daci shakwa faqad halaka jamia bi mawtin laysa ليس بالثمن الربيح وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي جوي نخ كي جوي دم نتدوت الجك منيكو تمانجي يقلني جوي دوت المنجرين نتكي موك ndax fàddu na ci bàmmeel dootul dellu si xanaa kay àllaaxira rekk mu ne ko ki jare jooy kay mooy bakkan bii la jonkonu bëgg rekk nga topp ko ba juumook sa boroom jooyal sa bakkan fexeel noo bëreeg sa bakkan fexeel noo bëreeg bëreeg fexeel noo bëreeg àdduna ba ñu bañ la moyloo sa boroom ndax maa ngi lay yëgal ne yow Adam yaay sama kilifa waaye nag àdduna bi du kër gu ñuy beel du kër gu ñuy nekk ba faw yàgg-yàgg dañuy ñibbi kàddu yu rafet yooyu la suñu maam xawaa dëfale suñu maam aadam alayhi salaam moo tax yàlla ne wutal soxna pour sa xol mën a dale ci moom waaw waxuñu nag soxna su lay teg fitna waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu defal la dalal la kon suñ maam xawa dalal na suñu maam aadam alayhi salaam ci naqaram woowu ndax wax nañ ne suñu maam aadam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nanguwul la reetaan ndax mettit lu crime bu réy bi nga xamante ni doomam def na ko waaye iblis moom nag ñaawal na leen ne leen yéen a nekkoon àjjana kon fay cakaay nekkoon fa ak dund gu neex ma añaane leen ko ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya indi leen ci àdduna bu xat bii tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol maak samay pexe danaa pexe ba ëllëg su ma dee dugg safara duma fa dugg man dong ay budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen kon yow adam amul kenn ci sa njabot ko xamanteni ni rek dañu dugg aljana ñepp safara lañu jëm ànd ak man ma leen bañ iblis la'natullahi alayhi kaddu yoyu la wax pour feddali nonom nonelam ci doomu adama wax ne ne suñu mam adama alayhi salam yalla remplacer nako dom ju bax ju ñuy wax shit mu nekkoon itam doom ju yéeme ndax soo demee ci xilaasu dahab fi siirati xayril arab sidi xaaj mali si mu ngi fay wax ne wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiiratil karami mu ne chiit ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi alayhi wa sallam loola tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dongu moo ñëw ndax leeru yonent bi sallallahu bi nekk ci moom siis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam aadama mën a fàtte Haabil mu nekk nag gone gi sës ci moom mu koy wax ay mbóotam di ko wax ay xabaaram yàlla itam def ci moom secret suñu maam aadama alayhi salaam ne bu fi jógee siis moo koy donn mu nekk prince héritier nekk waliyul ahd bi moo tax moom siis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bi di adam alayhi salaam bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam moo tax nag ñu ne suñ maam adam wàcce woon leen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàcce na ko ci moom waaye nag qaabil mi nga xamante ni moom moo rey haabil moom suñu maam aadam daf ko dàq daf ko dàq génne ko këram ndax dafa mooy ndigalam yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit kon nekk na aaq ndax mooy na waajuram nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax adn ci réew mu ñuy wax yaman fa nekk nag fa la ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko xam nga li tax ba nga jëlee sarax sa jël sarax yàlla nangu saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sa rakk ji ak aadam safara lañuy jaamu te yow nag mosuloo jaamu safara looloo tax safara mere la jëlul sa sarax looloo tax safara si ñëw rekk jël saraxu sa rakk di haabil ndax sa baay ak haabil ñoom safara lañ doon jaamu kon nag so bëggee nak jubóog sa borom da ngay jaamu safara ndax safara moy sa borom wax ne ne mom qabil mo ñëk ke jamu safara waaw mo ñëk jaamu safara mom ak jabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo doon xam ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for ni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lépp luy xeetu instrument boo xamante ni danañ ko jëfandikoo ci wàllu musique ñu wut ko nag di naan sàngara seen kër nekk kër goo xamante ni bañuñu dara lépp luy lu bon ñu ngi koy def moom ak njabootam ci melokaan wu bon woowu la ñu nekkee di jaamu safara di tëgg di way di fecc ba ñu ngi yàllaa ngi leen alage ci jamono yonent yàlla nuux ba yàlla tawloo asamaan gëqaloo suuf ndoxam ci lanu alku ñoom ñépp mu mel ni nag am na sax ñuy wax ne xaabil mi nit ku maanaam jëppi gi ko yàlla jëppi taxoon na njabootam nekkoon ay nit ñu ñuul wante ñi wax loolu waxuñu ko lu dul rekk dañu ko wax ngir wàllu racisme wante du xaqiqa boo xamante ni mën nga caa teg sa loxo ndax gisuñu fenn ci alquran fu yàlla gënalante diggante nit ku weexak ku ñuul walla nit ku xonq wala nit ku jaune lu dul ne yàlla def ne daal ngëneel mu ngi ci ragal yàlla ngëneel la ci xol moo tax kon ixtilaaful alwaani wal alsul maanaam li yàlla wax ne seen wuuteeg melokaan ak seeni wuuteeg làmmiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni الناس سواسية كأسنان المشت لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يونتي صلى الله عليه وسلم نين نيت ني ньо يم كوم بني بني مونيكو ويخ غنول كو نيول كو نيول غنول كو ويخ نينا غنيل بي دال مونكي راغال يالا te itam bu ngeen delloo ci histoire da ngeen gis ne aadam amul woon couleur buñ ko mën a jox mënoo wax ku weex la mënoo wax ku xonq la mënoo wax ku jaune la mënoo wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa daje woon ci moom waaw moo taxoon ñu tuddee ko aadam ndax al ut ma mooy lu tikk gis ne nitam ku mel ni luqmaanul xakim alquran tudd na ko tudde nañu ko saar mu doon nit ku baax nit ku rafetoon ay kàddu alquran cité na ko wane ay jikkoom yu rafet wax nañ ne nit ku ñuul la woon yonent yàlla Muusa ñu bari jiiñ nañ ko ne nit ku ñuul la woon maariyatul xibtiya mi nga xamante ni moo juróon ibrahima miñ doon wax léegi te bi mu génnee àdduna e, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jooy mi nit ku ñuul la woon bilaal mi ngeen di dégg itam mu doon muy ki njëkk a nodd ci lislaam te yàlla bëgg nodd lool yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu baax ñi bëgg ko te noddukat yi ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana leen xarool ay ba yu rëy moom bilaal moomu nit ku ñuul la woon kon wax jooju day daal di dàqu mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam ba mu demee ba ak mag jege ci moom woona doomam jooju di siis mu jël xilaafa gi teg ko ci loxoom gannaaw ba ko yàlla dogalee ba noppi wante wax nañ ne bi nga xamante ni suñu maam Adama alayhi salaam yàlla dogal na mu génn àdduna keroog nekkoon na bis bu tiis ndax cofeel gi nga xamante ni ay doomam amoon nañ ko ci moom ndax yàlla daf ko def mu nekk xalifaam ba pare mu tourné def ko ab yonent ci doom yi nga xamante ni moo leen jur moo tax jur nekk na yonent ci ay doomam buñ la ko laajee moo di aadam mooy wayjur bi nga xamante ni yonent la ci ay doomam ndax ñu ñiñ ko yónni ñëpp moo leen jur ci ndigu boppam moo tax ñu ne bi mu génnee àdduna malaayka yu bari wàcc nañu jibril jiite lanu jiite leen bi ñu ñëwee bi ñu ko sangee defar ko ba pare sang ko ba teg ko pour jullee ko wax ne ne siis dafa wax jibril ne ko li ma bëgg daal mooy nga jiite ko mu ne ko déedéet doxal ca kanam nga jiite nga jiite ndax yow yaay sa xalifa baay yaay xalifaam fii ci kaw suuf li mu doon doxal yaa koy doxal kon nag taxawal nga jiite ko moo tax siis moo jiite way juróom woowu di suñu maam Adam alayhi salaam gannaaw ba nga xamante ni yàlla dogal na ruuxam gu sell ga fàddu waaye wax na ne rey gii nga xamante ni rey nanu ko Habil te Qaabil rey ko nekkoon na mettit woo xamante ni mettit wu doy waar la mettit wu yéeme la ba tax na itam yalla deug na ci tëkku bepp nit bo xamanteni da ngay nek ci kaw suuf di yaq surtout ngay def lu grawé ni ray nit ndax amna na wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit waye dañ daan tan ay nit ñu bax di len ray daan nañu ray ay yonent waaw di tour seeni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni ni ku ko def duñu la mëna faye luddul dul safaraw jahannam motax yàlla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يالا نينا كيب كوري بكان ملناني كوري بن نيت ملناني راي نيت نيب nee itam ku dundal benn nit mel na ni dundal nga nit ñëpp kon loolu day wane ne eh, reykatu nit bi ka mu rey reyu ko moom dong waaye reyaale na société bi yëpp médecin bi faj nit ki itam di ko jox ay garab di ko dimbale ba mu wér kooku na jàpp ne dundalul benn nit waaye dundal na nit ñëpp ba tax na itam bu ko yàlla di fay fay bu rëy la koy fay yàlla fonk na nit fonkeel boo xamante ni bëggul sax nit ki rey boppam ndax boo reyee sa bopp dañ lay jàpp dañuy jàpp ne nit nga rey